Euh, am na wala amul. dëgg la bu ci topp mooy yonente yi ñu leeralal ñu ndax dañuy mooy wala ndax dañuy tooñ wala ndax dañuy def ab bàkkar ak ndax jamono jooja loolu mooy la woon. ak jamono jooju tamit loolu ñu nettali ci yonent Yàlla Daawud ak yonent Yàlla Suleymaan ci jamono jooju ni ko Mouhamed waxee ak mooy loolu ñu ubbee ko waxtaan wi Oustaz Mbacké mm-hmm. macha allah jërëjëf yaa Moussa ñu ngi lay fay nuyoo mm-hmm. di nuyu ñi ma bokkal palaato bi yëpp mm-hmm. ni ma ko waxee léegi di am mbégte lool ci ñëw joxe sama participation ci jotaay yi ngeen fii def te yëpp am solo rawatina actualité yi euh, rawatina actualité tay bi nga xam ne mbokk yu baree bari yuñ bokkal daara ji génn nañ euh, def ay sorti joxe ci seen xalaat ginnaaw bi nga xamante ne Cheikh Moustapha Sy Al Maktoum euh, génn na ci ci gàmmu gi euh, ni mu ko baaxoo defee at mu jot ndax sëñ Moustapha génn yu am solo lay génn di waxtaan ak mbokki julli di saa su nekk waaye léeg-léeg euh, diine dafa am yu bare bare yu nekk yoo xamante ne dañ koy dañ koy waxtaane moo tax bu mbir ñëwee te tegu dafa am ñu ci war a wax ak ñu ci wërta wax am ñoo xam ne buñ ci waree wax it seeni wax li ci ëpp ay laaj la war a doon mm-hmm. am ñoo xam ne itam dañoo war a dem gëstu ji bala ñoo weddi menn mbir bu dee am nañ euh, données yi nga xam ne yëpp moom la ñu war a gëstu jee bu fekkee mbir mi bokkut ak lañ xamoon su fekkee bokkut ak li ñu xamoon nag ñu xool ba xam masala mi ñëw ban impact lay def ci ñoom ndax lii dafay laal seenu jaamu yàlla ndax dafay laal seen pas-pas ndax dafa am lu mu leen di yàqal ci seen jaamu yàlla wala déet defe naa laaj yooyu yëpp kenn ku nekk war na koo laaj door a ñëw ci jéem cee jéem cee joxe benn euh, benn benn àtte ànd ak loolu yëpp nag bu ñu rafetloo waxtaan wi nga xam ne sëñ Moustapha def na ko fa ak ya ko jiitu ndax dañ koy xoole way juróom sëriñ Seex eh, ci taxawaay bi nga xam ne moom la amoon ci bisu gàmm am ko ci diine ji waaye doon ab model ci képp koo xam ne doomu daara nga sëñ Seex modèle la ci yow ci modelu jàng li nga war a jàng ci daara ji waaye dégg sam réew eh, ba nga xamante ne sa parti maanaam maanaam sa contribution ci développement réew mi kenn ëppale ko ci léegi nag eh, laaj bi nga laaj léegi mooy ndax ab yonent dina mooy wala déet loolu dañ koy delloosi ci ñun lan lañ tudde mooy mhm. xam nga jamono ju nekk dafa am lu fa tudd mooy mhm. am jamono joo xam ne am na jamono joo xam ne loolu tuddul woon mooy li ñu tudde mooy yàlla ñun loolu kañ la tudd mooy yàlla mhm. li nga ne moom lañ tudde tey lu araam ma waxee ko noonu ba bañ a tudd yàlla waaye li nga xam ne moom lañ tudde lu araam loolu kañ la araam xam nga yonent yàlla aadama rek bi mu fi nekkee maam aadama ay doomam yu bokk ndey ak ñoo doon sëy ci seen biir Mhm. te pourtant lolu dafa aram jamono ji ñuy wax mhm. waye ba fi adama nekké dong mok hawa ak domam mhm. euh manam cheikh bi juddu 2015 bu góor bi moy tak cheikh bi juddu 2017 cheikh euh, bi juddu 2017 tay jigen moy sëy ak seex bu jigen ba ba juddu 2015 te ñoo bokkon benn biir bo xamne ci lañu genné waye jamono joju lolu mo mënoon a nekk moo tax loola araamul euh, xam nga kan mo moy jamono joju moy doomi adama ja nga xamne benn doomu adama khabil mi wax bayam ne ko ni teural bi nga teural duma ko teural parce que sama ki nga bëgg may dafa ñaaw sama cheikh bima bokal bokkal benn biir ñu bokku judd 2015 mom lay tak. ndax koku mo rafet ci alcorane ñun koku la tuddé ko moy koku moy ki nga xamantene mo def lu aram ndax mom ki mbokal benn biir la bëgg a takk te li bayam teural muy shariaam di sharia adam moy ñaar ñu benn biir sey kon mbir mu nek buñ nawala aram na wala dagan na dañuy laaj kañ la aram ak mbir mi kañ nga dagan mm-hmm. xam nga kon lool mo doon am ñi dem bam yag nit bari ci kaw suuf kon comme nit bari na ci kaw suuf soxlaatut nit di sëy ak ku mu bokkal eh, ndey ak baay wala ku mu bokkal benn biir bu mu juddoo ñuy dem di dem di dem di dem demoon nañ ba jamono nit di boole ñaar ñu bokk ndey baay takk leen te loolu mm-hmm. araamut woon alxuraan day wax ne wa an tajmau bayna al uxtayni illa ma xat salaf yàllaa ngi tere ku boole ñaari sœur def leen jabar lu dut la jiitu woon maanaam la jiitu woon kon ça veut dire que baal na leen ko mm-hmm. léegi nag araam na désormais araam na nga xam ne day dem ba mu yàgg benn luwaa ñëw araamal dara ci diine dem ba mu yàgg euh, lu ko jiitu araamul woon bi yonent yàlla xaman ñëwee sallallahu alayhi wa sallam suñ borom jox ko diine ji nga xam ne mooy diinee lislaam mu ñëw war a tëj li nga xamante ne mooy ak nubuwa tëj li nga xam ne itam mooy risaala ci kaw suuf indi mission bi nga xamante ne moo mat bi mu ko jàngalee ba mu mat mu ne beneen euh, euh, beneen diine wala yeneen i loi yu ñëw di araamal li mu li mu daganaloon wala mu ñëw di daganal li mu araamaloon loolu dootu amati léegi ma al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum al islaama diina nga xam ne léegi kon lépp mat na loolu mooy laaj bu njëkk bi tontu bu njëkk bi mooy kon bu ñëwee mbir dafa araam dañ naan kañ mhm. kañ la araam ka ko doon def ci ban jamono la ko doon def xam nga tey boo ñëwee tey suñu luwaay réew mi euh, ki nga xamante ne dafa dañ koo accusé woon viol avant ñu koy criminaliser bokkut ak ki nga xamante ne dañ ko koo accuser bi ñu ko criminaliser euh, maanaam siis bi tey bu tiimee yëf yi bi ñu ko criminaliser bokkut ak bañ ko criminaliser gud ni mu ko ni mu ko tiimee léegi atte yi kon foofu mi ngi mel ne nga ne diwkat ko dafa violé woon waaye trois ans lañ ko tëj bàyyi ko loolu du yoon mm. te ko violé dañ laa war a tëj dix ans wala wala quinze wala kon kañ la ko def mm-hmm. nga ne ba mu koy def loolu loi boobu ñëwagudoon kon loolu engagé wu la defe naa misaal mi leer na mm-hmm. nag ab yonent ndax dana mooy wala déet kon loolu leeral na wax ji mooy li ñu tudde mooy ñun lan la mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala alquran daf ñuy wax ne daawuda euh, anna fatannaahu fastaxfara rabbahu wa xarra raakian wa anaaba léegi fastaxfara rabbahu daawuda mel ni ku naan def na bàkkaar yàlla ne ko jéggulu ma mu jéggulu ko laaj day juddu foofu ci yan bàkkaar la def bàkkaar boobu lan la léegi boo taxawee ci loolu ci luy posé question kon ndax ab yonent day mooy ba ko naan jéggulul wala ndax day wala yàlla bu waxee ab yonent ne ko jéggulul jéggulu gi leneen lay tekki comme ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ borom nee na ko na nga jéggulu wastaghfir li zanbik na nga jéggulu sa bàkkaar yi ba noppi wax ko ci alquran ne ko maa la baal say bàkkaar ba noppi ne ko jéggulul say bàkkaar yonent bi ne bis bu set danaa jéggulu lu mat juróom-ñaar fukki yoon beneen waaye mu ne danaa jéggulu lu mat téeméeri yoon kon léegi li muy jéggulu yëg-yéegi boppam la yum jàpp ne moom àq yi dox digganteem ak boroomam ak li ko boroomam defal ciy teraanga war naa gën a góor góorgóorlu muy jéggulu ngir góorlu di jéggulu ngir jàngal ñu ne gannaaw man maay jéggulu yéen da ngeen war a jéggulu seen borom subhaanahu wa taala loolu taxawaayu yonent la léegi nag li sëñ Moustapha wax sëñ Moustapha njëkku koo wax sëñ Moustapha jiituwut ci wax ji moo tax euh, des fois dal ci kaw sëñ Moustapha xam nga ñun léegi dañoo ne ci jamonoy réseaux sociaux ba nga xam ne kenn ku ne day jonguru dafa am ñoo xamante ni dañoo taxaw rek jonguru nit maanaam jonguru aw nit Euh, bu yaa Moussa di def émission bu defee góolu daal waa di ko góolu mooy jongur waaw kon merci beaucoup bu yaa Moussa di def di def génération boobu la ngeen man damaa kaw kaw <laughs> xam nga kaw kaw moom kaw kaw la rek kaw kaw moom lu mu yàgg lay doon moo baat bu ma wax mu jafe rek nga jegeel ko mu <laughs> moom kaw kaw la rek am na solo am na solo euh, tey bu yaa Moussa waxoon euh, bu yaa Moussa doon def émission tey mhm. ba wax benn baat boo xamante ni jàpp nañ ne baat bi du noonu mhm. bu njëkkoon nit ñi dañuy toog di ko werante léegi nag dañoo am réseaux sociaux kenn ku hmm. nekk day am fu mu mën a génne ca sa daal ni tëll waaye nag yëf fi def ci teey tuuti baax na ci hmm. xam nga tey bu dee nit daa wax loo xam ne moom njëkku koo wax hmm. te li mu wax am na téere yu ko wax débat xam-xam la war a doon débat xam-xam ay boroomi xam-xam ñoo koy séq ñoo xamante ne dañuy respectante léegi laaj bu njëkk bi mooy daawuda loolu yi sëñ Moustapha wax ne doon na wax Souleymane ne ko sama alal ji yëpp yaa ngi koy jël di ko jox sa coro yi baatu coro ñun lan na taxawee ci ñun léegi Souleymane bu fekkee dafa yoroon ay jabar yu baree baree baree baree baree bari ndax sariya am maye woon na jabar yu bari yooyu wala déet su fekkee ay jaam la yu mu àndal ndax loolu sariya maye woon na ko wala déet ndax sariya Souleymane ak a maye woon na ko wala déet loolu dañ koy xool yaa Moussa mais du lu lu nit di jékki-jékki rek daal di tël daan ne dafa ñaaw njott ci yonent bi ku toll ne Souleymane nga di ko tiimal ay coro ñun ñoo am problème coro léegi parce que ñun suñu diine tënk nañu ci ñeenti jabar ba noppi araamalal ñu jaxasoo yenn jaxasoo yi mais est-ce que est que que contexte bi ñu nekk ñun mooy contexte boobu wala déet est lool que loolu moo valable wala déet léegi nag am na ci diine lu ñuy wax israiliyaat israiliyaat ay nettali la yoo xam ne dañuy wax ne ñiñ bokkalu diine ñoo ñu ko nettali voilà foofu laa bëggoon ñëw day naan am na si ay téere yu mu nekk. mais ay téere noonu l'islam. voilà non pas sax léeg-léeg sax ñu tuddee ko noonu. l'islam wala loolu rek la léeg-léeg mu doon ay téere yoo xam ne dafa mhm. ma baal. Mhm. wala mu nekk ci téere nettali yi nga xam ne dafa jiitu woon l'islam. Mhm. ñoom nag bari loo xam ne nettali nañ ko. israéliyaat du lépp la ñu dàq waaye du lépp la ñuy jël. lépp loo xam ne nettali nañ ko dañ koy jël natt ko ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ñu nettali ci yonent booba su fekkee dëppoo naa moom ñu jël bu dëppoowut ak loola ñu bàyyi léegi nag am na loo xam ne mi ngi ci téere yi mi ngi ci tafsiir yi mi ngi ci mi ngi ci nettali yi mi ngi ciy jiitu ñun borom xam-xam buy liir mën naa mën naa yàgg liir jël lu ne léeg-léeg temps de parole mën naa bañ a may nit ki mu expliquer mhm. ay sources am li ma mhm. wax nii fan laa ko jële fan laa ko jëlee fan laa ko jëlee mais mën naa jekki jékki jël benn misaal en tant que intellectuel buy liir boo xamante ne misaalu jàngale la ciy jublu man maa ngi jàpp ne sëñ Moustapha dafa joxe exemple lu jàngale ci léeg-léeg nit koo xam ne yaa ngi corriger nit ci benn erreur bu mu def wala loo jàpp ne li mu def nii waru ko woon a def fekk moom it xam na ci yow loo xamante ne mënoon na laa wax ne la lu tax nga def lii. ak mhm. ak li nga defee nan nga ko defee. léegi nag kuy wax di site ay exemple exemple ku ci bëgg a baase wu def ko sujet de débat dafa mel ne am na leneen luñ bëgg